asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara seen mbokk Mouhamadul Amine Sall euh, may wax Sidna Omar Seye euh, li ma la doon wutloo di ko wutloo mbokk yi jot naa ci lu baree baree baree baree bare waaye la ma soxla amaguma ko euh, mbiru Cheikh Omar Diagne yi wax naa la ni dafa am ñu bare ñu ni ma sëñ Lamine bu ci wax te ñi ma ko wax bokkuñu fuñ jógee xamante wuñ dañoo jël daje ci ay téléphone ku ne ni ma daal mbiru Umar Jaay ñi daal fexeel ba bu ci wax mani duma ci wax waajuma ko woon sax waaye gannaaw gi ma xalaat ma dégg ñu ni um Cheikh Umar Diagne dafa ñàkkee teggin sëriñ Touba moo waral coow lii ma ni nag waa mii man est am naa droit noppi ñu ñàkkee teggin sëriñ Touba ñàkkee ko wor njabootam jóg di wax mani man sama yoon nekku ci du ma ci wax ma ne bu fekkente ni ñi ma bu ci wax li muy sëriñ Tuubaa moo tax ñi ma ñi ma bu ci wax aw ma droit noppi ci parce que ni ñëpp di waxee laa wax laa war a waxee bu ñuy pelante damaa war a pelante bu ñu xuloo damaa war a xuloo bu ñuy xeex damaa war a xeex waaw euh, mani kon nag waaye nag duma wax ci lu ma xamul ma yi nag euh, dama ni woon fani burdu bi aw ma aw ma jot di déglu sax youtube di seetaan youtube dama ko tegoon ne ma ni nag nañ ma yónnee vidéo yi ak lien yi ak audio yi nga xam si moo waral mbir mi moo waral coow li parce que bu ma ci waree wax rek damay wax ndax nag boo amee say mbokk nga fekk leen ñuy jooy danga nga la dañ da nga leen a war a laaj ñuy jooy lay lan la bu ko jaree nga ànd ak ñoom jooy boo saful jooy sax nga jooy jooylu man nag nañ ma indil vidéo yi ak audio yi ak lien yi macha allah am naa ci lu bare lu feesal sama téléphone bi ku ne yónnee na ma waaye dégguma ci benn vidéo wala benn audio àggaguma ci de déglu naa yëpp na jotaguma vidéo wala ojo boo xam ni dafa ñàkke teggin Serigne Touba dafa ñàkke war ma Serigne Touba wala mu ñàkke war ma kenn ci mag yi Seydi Hadj Malick wala ku mën a doon déggaguma ko ci yi nga xam si moom laa jot am na bu ma dégg de mu ñàkkee teggin Mouhamed Siis Mouhamed Siis euh, ak baayam mu roi Hassan dégg naa it fu mu ci waxee ni euh, jumaay jumaay Grande Mosquée am na signe maçonnique jumaay Touba am na signe maçonnique loolu de laa ci dégg loo xam ne sii ñaawlu naa ko ca loolu bu dee bu assemblée bi la kooku nag digganteem mag waa Maroc la mais man dinaa kontaan dinaa kontaan comme Kaaba ga ci boppam boo demee montre ba ca Kaaba ga nee nañ am na signe maçonnique lu ñu waxal Kaaba ga daal man buñ ko waxalee jumaay Serigne Touba du ma metti buñ ko waxalee jumaay Sidi Hadj Malick du ma metti bu ngeen duggee ci internet bi dangeen dégg ñi ni ñu wane signe maçonnique boo xam ni maçonnique boo xam ni am na ca kaabaga am na ca Kaaba ga waaw loolu waaye gannaaw loolu lépp nag yi ma dégg nii amu ci benn wax boo xam ni deux mille vingt trois la deux mille vingt trois amu ci yi ma dégg yëpp deux mille vingt deux la ko Omar Diagne waxoon. wala deux mille vingt et un wala deux mille mais deux mille vingt trois moom wóor na ma ni waxu ko ci deux mille vingt deux yaakaaruma ko kon léegi nag li may laaj ba léegi kenn waxaguma ko Umar Seye li may laaj mooy li yëkkati coow lii yëpp coow lii riir mi manifestation yi maanaam réseaux sociaux yeeg YouTube YouTube yeeg yëpp a ngi fees dell ak Umar Umar Umar Cheikh Umar Diagne am na lu ko waral loola loola laa bëgg ñu wax ma ko ba léegi kenn indilaguma li waral coow lii parce que bu dee vidéo yi ma jot moom du daaw du ren du daaw ci kon li may laaj kenn indi la ko man daal nañ ma indil vidéo boo loo xam ne si Omar euh, Cheikh Omar Diagne ren ji la ko wax maa ngi di dégg ci ñu naan Jomaay dafa war a wàccee Cheikh Omar Diagne mais jomaay bi muy fal Cheikh Oumar Diagne vidéo yi ngeen teg ba tax naan na wàccee Cheikh Oumar Diagne vidéo yi mi ngi fi woon vidéo yii tax ñu naan nañ wàccee Cheikh Oumar Diagne bi jomaay di fal Cheikh Oumar Diagne vidéo yi mi ngi fi woon fekk na am na fi ñaari at moo tax ma ni Oumar Seye li may laaj indi la guleen ma ko li may laaj indi la guleen ma ko li ma soxla ngeen wax ma ko mooy lan moo xew Cheikh Oumar Diagne lan la def ak lan la wax ba tax ñu indi waxu daaw jéege ak waxu daaw ya ak waxu daawaati jéege man loolu mooy parce que tooguñu ba ci yàgg rek daal di indi waxu parce que vidéo yi ma dégg yi ma jot jotoo déggoon naa ko lañ ca waroon a wax waxoon nañ ko ca te yow Umar Seye yónnee naa la ay vidéo yoo xam ne si bu fekkente ni nettali wax yàgg ya rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al fitnatu naa'ima laana man ay qabaha yónnee naa la kilifa gu mag ci tijaan yi lu mu waxoon ci Serigne Touba waaw loolu bu ñu ko génnee waatoon du nekk histoire waaye yónnee naa la kilifa gu mag a mag ci Touba lu wax ci Sidi Hadji Malick wax ko ci ti ci tijaan kenn téléphone yi Serigne moo ko wax waaw mais léegi yooye nañ jàpp ni wax ju paase la af allahuma salaf ba pare tim buñ bëggee topp wax yu jëkk yi di ko delloo siwaat juboo du am ba mukk léegi nag man li ma soxla ba léegi amaguma ko maanaam maa ngi mel na kuy wax ci mbir amee euh, euh, Cheikh Omar Diagne waaw waaye waxaguma ci parce que dama doon laaj dama ni man bu fekkente ni dafa ñàkke war ma Serigne Touba ñàkke teggin euh, Serigne Touba aw aw ma duraa noppi ci te mayu ma kenn ku naan ma Euh, ñàkke nañ ormu sëriñ Touba ay njaboot sëriñ Touba ngi wax yow sa yoon nekku ci kooku moom du ma ko nangu mais nag maa ngi dégg jooy yi man damaa bëgg a jooy nañ ma waral wax lu lu waral jooy yi ma jooy bu fekkente ni safuma jooy ma jooy jooylu parce que maag samay mbokk la bu dee vidéo yi ma jot nag dégguma ci lu ñàkke teggin sëriñ Touba déggewuma ci ñàkk woor may sëriñ Touba dégg naa ci biir ojo yi ay Serigne yi Umar Diagne Cheikh Umar Diagne wax ni ñoom ñooy blanchir xaalis bi ca bitim réew di ko indi fii mais waxul Serigne Touba waxul xalifa Serigne Touba waxul doomu Serigne Touba ñami wax man mii sax bokk naa ci parce que am parce que am naa ay bàyyi sëriñ am naa ay mbokki Serigne léegi kay foofu liñ ko war a laaj mooy Serigne soosu anañu est-ce que dëgg la kon li man daal sama problème Umar Sey même yooyu sax nañ ko ñaawlu yooyu sax lu ñaaw la lu Umar Cheikh Umar Diagne wax mais ñaar laay laaj li indi li tax li tax ñi génnee vidéo yi ba indi démb Umar Diagne indi ay vidéo dagg yam waxoon deux mille vingt deux mille vingt et deux mille vingt deux yooyu yëpp indi giñ ko indiwaat ci réseaux sociaux am na lu ko waral Omar Seye am na lu ko waral loolu laa bëgg ñu dimbale ma ci wax ma anal lan moo indi lii parce que man bu ma laa jee lu xew dañ may indi vidéo yoo xam ni yu ñàkk teggin la waaye yàgg la mais nag awma ci dégguma ci benn boo xam ne si mën nga cee tiiree ni kii dafa bañ Serigne wala kii dafa ñàkk orma Serigne Touba dégguma ko dégguma ko ci waaye nag ana lu waral ñu même bu ci amoon anal lu waral ñu génnee ko tey ñi naan ñi naan jomaay na wàccee Cheikh Oumar Diagne vidéo yii bi jomaay di fal Cheikh Oumar Diagne jomaay ñàkkul ni dégg na ko parce que mi ngi fi woon deux mille vingt et un deux mille vingt et un deux mi ngi fi te bi mu falee Cheikh Oumar Diagne kenn niwu ko lu tax ngay fal Cheikh Oumar Diagne ak ndax ñu fu cag ñàkk teggin yi mu wax kon ana lan moo waral li xew lan la li yëngu lan la ba tax ñi ni Oumar Diagne nañ ko wàccee ba pare ci président la république maanaam peuple bi ak lu ñu bare bare doole sëriñ si lu ñu bare bare doole tiijaan murit xaadir ñépp bu ñu àndandoo woon ni lu jomaay indi ñi ni nañ ko teggi teg fee mais kon lan lay gouverner lan lay gouverner atiiu llaha wa atiiu rasula wa ulil amri minkum président de la république maanaam moo ëpp moo ëpp orma ci réew xalif généraux yëpp boo leen boolee ci lislaam laay wax de ci lislaam président de la république moo ëpp orma ci réew xalif généraux yi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni assultaanu zillullahi fi ardihi fa man akramahu akramahu llah wa man ahaanahu ahaanahu llah waaw maanaam euh, buur wala njiitu réew mooy keru yàlla ci suuf si ku ko teral yàlla teral la ku ko war ku ko tedd dil yàlla tedd dil la kon naan ba léegi maa ngi laaj ñu wax ma lii li waral mbir mi lan la jot naa audio ak ay vidéo ak ay liens yi Cheikh Omar Diagne yi wax wax yoo xam ni man bu ma doon wax du ma ko wax am na ci yu ñàkk teggin waaye yooya du daaw du ren du daaw du daaw jéeg limay laaj mooy lu tax len moo xew ba ba vidéo yi génn lan moo tàngal dëng yi dënn yi parce que dënd yi tàng tàngoon na ci jamono ba mu koy wax mais seddoon na ci diggante bi mais li tàngalaat dënd yi bañ génnee vidéo yi laa bëgg ñu wax ma ko mooy lan ak it fan la mbir mi àgg ba ni bañ naan jomaay fay na wàccee Cheikh Oumar Diagne man loolu ci boppam mooy sama problème te bu dee vidéo yii ba ko Cheikh Oumar Diagne di wax jomaay dégg na ko kurul jomaay dégg na ko te ba muy fal Cheikh Omar Diagne vidéo yooyu mi ngi fi te kenn niwu ko lu tax nga di ko fal ak kii yim fi wax kon daal Omar Seye ba léegi maa ngi laaj bala maa wax li xew lan la jërë ngeen